salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw président di député de la CEDEAO pour la troisième fois je pense ban jàngat nga si am ak ban mbégte nga si am. d' abord sant yàlla julli ci nant bi bàyyi suma xel bu baax baax ci soloy kóolute ak waru garu ku ñu yebal iya la ngir nga liggéey ci turu sa réew turu askan ci biir. fukki réew ak juróom muy espace CEDEAO ci turu peuple CEDEAO yëpp ak malgré difficulté yi am ci état yi ndax xëtt charte wala def lu yoon àndul li ci war daal mooy wàccoo ak benn le giñ benn war war a benn le xeet wi euh, euh, fexe ba nit ñi mën a dem ak ñëw seen tey bakkan waaye itam fexe ba politique publique yi ñuy def ci turu askan wi ci gox bi ci espace CEDEAO méngoo ak li yokk askan wi xeet wi loolu nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax di gërëm waa parti socialiste ndax bu duloon nag parti socialiste euh, xaj na ci wàllu politique du ñu ma xamee ni ñu ma xamee ba tax waa Kaffrine di ma wóolu te wóolu te waa Kaffrine boobu euh, jaar ci ràññee gu ma PS ràññee moo waral Sénégal Euh, assemblée nationale fal ma falati ma falaat ma ñetti yoon député Sénégal ci parlement CEDEAO bërki démb rek bi ñuy waaj a jeexal session sixième cinquième législature journaliste ak ko te xabaar yi nga xam ne dañu leen invité ci parlement CEDEAO yëpp sargal nañ ñu jébbal ñu benn raaya ñu ngi koy jébbalaat suñuy wéyjur suñu juddu suñu parti suñu peuple Euh, di sant yàlla bu baax xam ne la ñu fa doon taxawee ak nañu fa doon taxawee dañuy gën a wagaat suñuy loxo takkaay takkaat suñu ndigg laxasaayu ngir nekk digne représentant wu peuple Sénégal digne représentant wu peuple CEDEAO ndax dañu tombe ak jamono boo xam ne renforcement des prérogatives euh, daf ñu tënk pour ñuy euh, liggéey bu baax ba CEDEAO des peuples nekk réalité. ñoo ngi jublu si 2024 fin d' année ma la doon laaj CFEE ak année scolaire électorale bi ñu jublu ban message ngay lancé. message yu jullit mooy d' abord sant yàlla julli ci sangu sandi euh, ndokkeel ñiy dund ci àdduna ñaanal ñi génn àdduna waaye itam am yéene bu rafet ci ñi war a ñëw ci dalee 2024 ba ilaa yawmi diin yàlla nañu dund ñoom. ci dundin ak ci nekkin bu gën a ñoŋ bu gën a neex ñun bu ñu juddoo ba nëgëni ak ñi ñu jiitu ñëpp ci jamono yu ñu dund ak ci anam ñu doon dund. Euh, di wax rek ne euh, ñu ngi aborder 2024 ak beaucoup d'espoir beaucoup d'optimisme ci lu bëri tax euh, d'abord fekkee tal jàmm ji ensuite yokk yi nga xam ne nii gis nañ ko ci réew mi budget bu yokk ay jéego yu ñu def ci anam yu bëri ngir méngale nekkinu askan wi ak. Euh, jéego yu ñu war a jéego ci wàllu euh, mais ànd ak jamono maintenant ñi ngi jëm ci année élection yàlla na yàlla def li gën kenn ku ne ndax fàttaliku ne yàlla mooy fal ensuite kenn ku ne fàttaliku ne yàlla buy falit daf ko jaarale ci bëgg-bëgg doom askan doomu aadama yi askan wi kon nañu ko wuut wutin bu rafet ñaan ko yàlla mais dem dagaan ko ci kóolute ak kaddu askan wi léegi nag euh, campagne électorale àggaguñ ca fi mu toll nii ñu ngi ci jamonoy tànn jamonoy segg jamonoy yàgg ñii ñu tànn daal yàlla leen jik te yàlla dafa leen xel bu rafet ak jom ak euh, bàyyi xel gu ñu war a bàyyi xel ne àdduna moom yàggul te lu yàggul nag comme àdduna euh, yàq ak yàqu xaju fi en tout cas man socialiste laa sama candidat mooy Amadou Ba yàlla na ko yàlla may ndam yàlla ko yàlla def ci xolu doomu aadama yi euh, gis naa sax ñuy wax naan cinquième président naan premier tour waye bo xolé numéro bi mu am ci bi wara war a yi 68 la am 68 nak moy moy 14 6 plus 8 day 14 day doon 14 nak bogo amé da ngay jël 1 yok ko ci 4 muy 5 muy e président té amna sax yeneen lu taxa tax nit ñi xam ne ci baatin moom yaakaar naa ne daal 5 nekk président au Sénégal. allah